أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid ba tey ñu toll ci baabun min ashirk iradatul insaan bi amalihi ad dunya bokk na ci bokkaale bëgg-bëgg doomu aadama ci jëfam mu namm ci àdduna ci kàttanu borom bi tey ñoo ngi jël xadiisu abi hurayra bi nga xam ne ibnu mubarak moo ko nettali jële ko ci xaywata ba hadis bi egg ci uqba ibnu muslim sufayya di nettali ne daxala almadina fa ida huwa bi rajul qad ijtama alayhi nnaas nee na dugg naa ci madina ma fekk benn waay boo xam ne nit ñaa ngi ko wër qad ijtama alayhi nnaas ñëpp a ngi ko wër dafa qaala man haza ma ne kii kan la waa ji nit ñi wër kan la mu ne fa qaalu ñu ne ma abu hurayra la kii mooy abu hurayra su fayanee fa danawtu minhu ma jege ko ma ñëw ba ci moom xatta qaattu bayna yadayhi ba ma toog ci kanamam ma jàkkaarloo ak moom ci jamono yooyu waa ji wa huwa yuhaddisu nnaas ma ngay waxtaan ak nit ña gis naa benn waay dugg naa ci dëkk bi di Médine ma gis benn waay boo xam ne nit ñaa ngi ko wër ma laajte kii nit ñi wër kan la ñu ne ma Abu Hurayra la ma jege ko ba ma toog ci kanamam waajaa nga continuer di waxtaan ak nit ña fa lamma sakata wa xalaa ba mu waxtaanee nit ñi ba pare ba noppi ba wéet ma ñëw ba ci moom ne ko qultu anshuduka bi xaqi lima xaddastani giñe naa la ci yàlla maa ngi lay laaj bëgg nga waxtaanal ma bëgg nga waxal ma xadisan samictahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aqaltahu wa alimtahu nee na ma ni ko maa ngi lay laaj nga waxal ma wax joo xam ne yaa ko dégg ci yonent bi bi nga ko déggee nga xelu ko waaye nga xam ko nga jàng ko xam ko fa qaala abu hurayra afaalu abu hurayra dinaa ko def de danaa la wax wax joo xam ne baa ko dégg ci yonent bi xelu ko xam ko mu ne la uhaddisannaka hadisan haddasanihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره danaa la waxal xadis boo xam ne tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ma ko nettali ci kër gii maa ngi moom dong ñu nekk fi kenn nekk fi ku dul maa ngi moom nee na Abu Hurayra dafa wax loolu ba pare daal di xëm summa nasaxa Abu Hurayra nasaxa summa afaaqa après bi mu ximmilikoo fa qaala mu ne ma encore la uhaddisannaka hadisan haddasanihi rasulillahi fi hadha al bayt dinaa la wax tey hadis boo xam ne yonent bi moo ma ko nettali ci kër gii maa fihi ahadun gayri wa gayruhu kenn nekk fi ku dul ma ak moom ba mu ma koy wax summa nasaxa après mu xëmaat Abu Hurayra nasxatan uxra beneen xëm summa maala xaaran ala wajihi ne bi mu ximili ko mu jeng mel ne ku ma dummóoyu kanamam gi wastadda bihi tawilan summa afaaq mu def noonu lu yàgg après mu ximili ko wa qaala mu ne ma haddasani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay yëgal ne yonent bi moo ma nettali lii ma lay wax anna allaha tabaraka wa taala ida kaana yawma alqiyaama mu ne ko na nga yëg ne sunu borom tabaraka wa taala su fekkente ne yowmal qiyaam jot na dana wàcc ci péncum qiyaama nazala ila ahlil qiyaama li yaqdiya baynahum yàlla dana wàcc ci péncum yowmal qiyaam pour atte jaam ñi su yowmal qiyaam jotee na nga yëg ne borom bi tabaraka wa taala dina wàcc ci pénc ma pour atte jaam ñi su boobaa nag wa kullu ummatin jaasiya xeet yépp dañuy à genoux wa kullu umma jaasiya xeet yépp dañuy à genoux ñépp dañuy à genoux allahu akbar moo tax ñàkk a jàng xadis yu mel nii dana yóbbu jaamu yàlla yi ci ay def-def wala ay sikki sàkk xam nga fu ñu ne kullu umma yonent bi ne kullu umma jaasiya xeet yëpp dañuy en genou bu yàlla wàccee di àtt jaam yi ñun fii ñu fas ay pas-pas yoo xam ne am na ñoo xam ne sawaay dañuy taxaw ranger rang yi naan sawaay ana waa kër diw ana sàmba ana ñoom demb dañ jaar nii xam nga ko en genou moom doo wax boo duggee classe nga fekk élèves yëpp toog am ñu ñu en genou ci suufu tableau bi ñooñu looy xalaat ci ñoom wala nga dugg bureau commissaire nga fekk ñu en zone waa ji ki nga doon seet si ñu en zone kon di nga xam ne kii mu ngi ci jafe-jafe wala ah ki nga fekk mu toog ci fauteuil bi ak ki nga fekk ñu en zone ko ñooñu kan moo gën a féex ki toog yonent bi nee na kullu umma jaasee xeet bi yëpp ay en zone allahu akbar mu ne fa awalu man yudaw bihi rajulun jamaa alquran keroog ku ñuy njëkka woo di ko àtte mooy waaju dajale alquran allahu akbar déggu leen xadis bu baax mbokk yi woowuñu ku dul julli de woowuñu sàcc woowuñu reykatu nit woowuñu agresseur woowuñu bandi kan lañu woo ku mokkal alquran rajulun jama al quran kooku la njëkka woo ah wa rajulun qutila fi sabilillah kuñ ciy teg deuxième waa joo xam ne dañ koo rey ci yoonu yàlla wa rajulun kasirul maali ak waa ju bëri alal waa joo xam ne dafa liggéey alalam am alal ju bëri xoolal ñu ne ñett ñi la ñuy njëkka woo yowmal qiyaam su fekkee ne yowmal xiyaam ki ñuy njëkk atte mooy ki dajale woon alxuraan mokkal ko ki daan jihaat ci yoonu yàlla ki amoon alalam di ci liggéey fii ci yoonu yàlla ñetti ñii la ñuy njëkk a woo kon ñi dul julli fu ñu jëm ah kon ñi jàngal alxuraan fu ñu jëm kon kon kon kon kon ñooñu ñu junn yu fu ñu jëm fa yuqaalu lil qaari fa yaqulu llahu lil qaari yàlla ne subhanahu wa taala ki doon jàng alquran alam uallimuka ma anzaltu ala rasuli waaw yow waa ji yow xamaluma la woon li ma wàcce ci samab yonent ndax jàngaluma la woon xamal la téere boo xam ne maa ko wàcce ci samab yonent qaala bala ya rab waa ji ne ah kay yow sama borom qaala borom bi ne ko fa maaza amilta fi ma alimta fa maaza amilta fi ma alimta waaw la ma la jàngaloon loo ci jëfe fa maaza amilta lan nga jëf fi ma alimta ca la nga jàngoon qaala waa ji ne kuntu aquumu ana alleyli wa ana annahaar yow sama borom man dey daanaa ci taxaw xaaju guddi ak diggu njolloor bëccëg daanaa ci taxaw xaaju guddi pour lan jaamu yàlla daanaa ci taxaw bëccëg bi pour lan jaamu yàlla fa yaqulu llahu lahu kadabta yàlla ne ko yaa mën a fen allahu akbar kadabta yaa mën a fen wa taqulu lahu almalaikatu kadabta malaaka yi tamit ne ko yaa mën a fen allahu akbar cëy ñun de xamuñu fuñ jëm ki jàng alxuraan la ñuy njëkk a woo yowmal xiyaam loo doon def ci sa alxuraan bi la yàlla jox dama ci doon naafila guddi di ci julli bëccëg yàlla ne ko yaa mën a fen malaaka yi feddali ko ne ko yaa mën a fen wa yaqulu llahu lahu yàlla ne ko bal aradta an yuqaalu fulaan qaari faqad qiila dalik yow alxuraan jama la joxoon ma laaj la loo ci doon def nga ne da nga ci doon julli guddeeg bëccëg te xam nga ne yow da ngay fen malaaka yaa ngi nii seede nañ ne yow da ngay fen ndeke yow la nga ca doon def mooy da nga doon neexal sa baat foo dem di jàng pour ñu ne yow ku neex baat nga yow boroom xam-xam nga yow ku mokkal alxuraan nga yow yaa mën a fen aratta da nga bëggoon an yuqaala ñu ne fulaan qaari waaye diwa jàng waay waaye diwa neex baat waaye diwa mokkal su jiitee bu jàngee loolu nga bëggoon nit ñi wax ko wax nañ ko faqad qiila zalika loolu dangaa bëggoon nit ñi wax ko nit ñi wax nañ ko jeex na mbokk yi foofu jar na taxaw de ah xoolal ndeke yowmal xiyaam du bandi yi la ñuy njëkk a woo du sàcc yi du agresseur yi du reykatu nit yi du njaalookat yi du fenkat yi du ñi du loon déedéet ñan ñi doon jaamu yàlla la ñuy njëkk a woo ki doon jaamu yàlla xoola waa ji li mu wax yow alxuraan biñ la xamaloon alxuraan bi ma joxoon sama yonent ma xamal la ko yow ba nga ko xamee ba pare loo ci jëf xoola waa ji li mu tont dama ci doon jaamu yàlla guddi ak bëccëg loolu la tontu de kuntu aqumu ana al leyli wa ana an nahaar dama ci taxaw guddi ak bëccëg di jaamu yàlla yàlla mu ne ko da ngay fen malaaka yi ne ko da ngay fen moom su waxoon ne sax man de jàng naa alxuraan bi mokkal naa ko waaye daawama ci def dara sax ñu ne kon kon waa ji waaye dane dama ci doon julli guddi di julli bëccëg yàlla mu ne ko da ngay fen kon fu ñu jëm kon yàlla rek moo xam rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kaana lil awabina ghafura yàlla rek moo xam li ci xol yi moo tax yàlla mu ne falaa du falaa tuzakku anfusakum bu leen setal seen bopp huwa aalamu bi man ittaqa yàlla moo xam ku ragal yàlla xoolal waa ji li mu wax jàng alquran guddi jot muy julli bëccëg jot muy naafila ah yàlla mu ne ko da ngay fen da ngaa bëggoon nit ñi ñu wax ko nit ñi wax nañ ko jeex na kii lan la ko yàlla fay su ma leen doon laaj kii lan la ko yàlla fay lu ngeen di tontu mooy hadis bi mooy mooy mawdu bi jëfam yëpp lan la ci bëggoon da doon gis talu àdduna la ci bëggoon àdduna la bëggoon ci jëfam moo ne yàlla mu ne ko da ngay fen moo tax c'est très dangereux foog ñu góorgóorlu foog ñu xoolaat suñu bopp foog ñu càmbaraat foog ñu xeex ak bakkan foog ñu xeex ak foog ñu xeex ak sinon rek dañuy liggéey ba sonn yowmal xiyaam ñu perte dañuy jëf ba sonn yowmal xiyaam nga waaxu yàlla mu ne la jaaral nii da ngay fen xoola waa ji li mu wax terewul yàlla mu ne ko da ngay fen te malaaka yi dëggal nanu loolu ne waa ji day fen kon yàlla mooy ki wax dëgg allahu akbar mu ne wa yutaa bi saahibil maal ñu xëcc borom alal ji ne ko eh sawaay kaay yow fa yaqulu llahu lahu yàlla ne ko alam uusa alayk yow ndax yaataluma la woon ndax mayuma la woon wërsëg wu yaatu ndax mayuma la woon lu ne gàññi ndax yaataluma woon sa alal hatta lam adak taxtaaju ila ahad dama laa may ba nga xam ne yow aajowootoo kenn sàkkootoo kenn dimbal tàllaloo kenn sa loxo naan ko waaye sawaay yow kay li ma la may daf laa doy sëkk ba aajootoo woo keneen fa qaala waa ji mu ne balaa yaa rab aha kay yow sama borom mayoon nga ma de ba li nga ma may doy ma ba aajootu mu woon keneen fa qaala borom bi ne ko fa ma amilta fi ma aataytuka lama la mayoon loo ca def fa ma amilta lan nga jëf fi ma aataytuka ca lama la mayoon loo ci def qaala waa ji ne kuntu asilu rahim wa atasaddaq dama ci daan jokk mbokk dama ci daan saraxe fa yaqulu llahu law yàlla mu ne ko kadabta yaa mën a fen wa taqulu lahu lmalaika kadabta malaaka yi ne ko yaa mën a fen ndeysaan xoola waa ji li mu doon li ma la mayoon loo ci def ne dama ci doon jokk mbokk sama mbokk yi fu ñu ne woon tëll ma boxoñ dix mille joxe boxoñ cinq mille joxe fu miskin ne tëll ma dóor ko deux mille dóor ko mille francs wa yaqulu llahu lahu yàlla mu ne ko yow yaa mën a fen malaaka yi feddali ko ne waa waa ji yaa mën a fen wa yaqulu llah yàlla ne ko jalla jalaaluhu bal arata an yaqulu fulaan jawaat da ngaa bëggoon nit ñi ne yow da ngaa tabe da ngaa baax nit ña wax nañ ko ba ngay maye da ngaa bëggoon nit ñi ne ak a maye ak a mën a maye waaye saa waay kii a baax waay kii day moom saa yu la gisee rek nga ndékki loolu nga bëggoon nit ñi wax ko nit ñi wax nañ ko faqat qiila zalika nit ñi wax nañ ko jeex na ndeysaan xoolal kii tamit yàlla may ko alal ba soxlaatul li ko yàlla may doy ko muy jokk mbokk di saraxe waaye ndeke ba mu koy def lan moo doon yéeneem pour fu mu ne tëll rek garaamu bu yeeg mbax na yi ñi simmi ko ak sànni musóor yi ne ko lalal nañ la diw ñëw na gaa yi di yuux waaw jërëjëf diw jërëjëf diw sëydi sëydi sëydi gaa yi bàkk ko di ko sànni ay yéreeg ah ndeke loolu la bëggoon gaa yi wax nañ ko yàlla mu ne jeex na perte na hadis bu ragal loo ngi nii hadis bu tiit loo ngi nii mbokk jullit yi ñu xëcc ñetteelu personne bi wa yutaa billazi qutila fi sabilillah ki nga xam ne moom dañ koo rey ci yoonu yàlla ñu daal di koy xëcc wa yuqaalu lahu ñu ne ko fi maasa qutil te waa yow lu tax ñu rey la wa yaqulu umirtu bil jihaadi fi sabilik dama jógoon di xeex yow yàlla ci sa yoon fa qaataltu ma xeex hatta qutiltu ba ñu rey ma allahu akbar wa yaqulu llahu lahu kadabta yàlla mu ne ko yaa mën a fen wa taqulu lahu almalaika malaaka yi ne ko kadabta yaa mën a fen wa yaqulu llahu lahu yàlla ne ko bal aratta an yuqaal fulaan jëri dangaa bëggoon ñu ne sawaay jàmbaar la wa qad qiila dalika nit ñi wax nañ ko jeex na danga bëggoon ñu ne jàmbaar nga moo taxoon nga war sa fas moo taxoon nga jël sa ngànnaay moo tax nga doon xeex di xare di duurantey jaasi ba ñu rey la ndeke li taxoon nga koy def du lenn lu dul danga bëggoon ñu ne diw jàmbaar la nit ñi wax nañ ko jeex na Abu Hurayra nee na yonent bi saa sallam bi mu waxee xadis bi ba pare summa daraba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala rukbati yonent bi dafa dóor sama óom yi fa qaala ya aba hurayra yonent bi ne yow aba hurayra ulaika salaasatu awalu xalqillahi tusharu bihim nnaaru yowma alqiyaama ñett ñii la safara di njëkk a lekk ëllëg yowma alqiyaama allahu akbar anan yàlla saxal ci njub yàlla bu nu yàlla won ci sunuy jëf sunu bopp yàlla bu ñu gis sunu bopp ci sunuy jëf yàlla nu yàlla xiir ci boppam yàlla na yàlla tax rek ñuy def yow Aba Hurayra maa ngi la yëgal ne ñett ñii awalu xalqillah ñooy njëkk ci mbindeef yàlla yi tus'aru bihimu naaru yowma alqiyaama ñii ñi la ñuy njëkk a boyal ëllëg safara yowma alqiyaama ñett ñi mbokk yi ñett ñi lan lañ def jàng alquran saraxe xeex ci yoon yàlla ba ñu rey la ñett yii su fekkee ne ñii la safara di njëkk a lekk ëllëg kon ñi bokkaale ñoom lu ñu def kon ñi di julli nag kon ñii def lu bon nag kon yéeféer yi nag moo tax kenn warul naagu ñépp war a góorgóorlu ku nekk waroo tekki sa ngemb ndax kat mbir mi du lu yomb de su fekkee ñii ak la ñu def yépp tey ñoom ñun bu ñu nekkoon ak ñoom fii ci àdduna ñu gis leen ñuy def ñun lan la ñuy wax ñu jàmbaar lañ de ay waay kii moo baax xoola kii ni mu jàng alxuraan xoola kii ni muy saraxee ci yoonu yàlla xoola kii ni muy xeexee ci yoonu yàlla xoola kii ni mu jàmbaaree ba tey dañ koo rey terewul yàlla di ñu jubanti yonent bi di ñu jubanti pour lan suñuy jëfi àdduna buñ ci bokkaale yàlla suñuy jëf buñ ci dugal mbirum àdduna loolu kese la iraadatul insaan bi amalihi dunya sa jëf yi ngay jëf ci àdduna bul ci boole lenn yàlla kese jox ko yàlla rek bul ci bokkaale moo tax aaya bi ne man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalih liyabluwakum ayyukum ahsanu amala foog ñu rafetal jëf yi ñu génn ci mbirum àdduna kon mbokki jullit yi hadis bii di hadisu abu hurayra moom moo doon darsu tey noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala fekkee ne juum nañ ci mu jéggal nu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkee am na ay laaj insha allah